dellu kañaat bàkkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat maam jaara ma dellu jaara ñoo ngi ñaanal bu baax nag Cheikh Modou taxa suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaan naal yim naal fas yéene liggéeyal Cheikhul Khadim euh, soxna Bali mi ànd koog moom ci barkeb Serigne Touba ci barkeb seen maam soxna si nag ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax biñ ñëwee fii maanaam teer nga ñu dalal nga ñu gunge nga ñu mboolem liy xeet teraanga rek tegal nga ko seen jiiri si la mi Euh, seen jiil nag yoonu ma ci yow kàddu cant kàddu cant goo xam ni am na commencement waaye amul kaay ndax euh, dafa jël jël taalibe gi nekk sab taalibe rek waaye ar su bàyyee ay yitteem ñëw ba ci euh, tuuba wala moo xam fu la mën di fekk da koy dang koy da nga koy teral gane ko ganale ko boole ko di ko digal lu baax ak di ko digal tamit di ko teg ci yoonu siraatal mu bég ci lool nag ba tax na bi muy ñëw. mu ànd ak uh, nijaayam xaritam muy alaaji badaloo mi ak amadou kam yi di saforam ak safor bi di saar di ànd ak nag uh, soxna ami xumma ak sëriñam bu baax mi di doomi Cheikh Mamadou Mourtala soxna si nag ñu ngi lay ñaanal ci barke sëñ Touba lii nga commencé yàlla nga ko def ay ati ati ati ci barke sëriñ Touba ndax yow kat dëgg yàlla da ngay sunub sag da ngay nit ku baax ndax sa kër gi ñun buñ fi ñëwee amuñu fi xaaj seen ñun ñëpp nga yaatal kon nag ñu ngi lay ñaanal ci barkeb Seex son yi bu sa baay suñu borom guddoo soo fan lool talafa la ca ci barke Sëñ Tuubaa ndax gis nañ bu baax ni nga jàppee jiili mi jiili moom it xam ko bu baax a baax a baax a baax ba tax na mu ni ma billaahi wala taalaay bu doon sama yéene lépp luy dépasse Poroxaan sax maa koy joxe ma ne ko nag incha allah rabbi wañu boo gis ci benn lay tàmbali euh, na tax sa bopp nga xool ndax ba yoonu Serigne Touba moom lépp lu ci waay def rek kanam rek nga jëm jil daal bég na bu baax ci teeroo gin ko teeral bu loolu jàllee nag maa ngi sant bu baax sëñ Mamoun Lo mii muy nit ku baax di nit koo xam ne wax dëgg yàlla euh, damaa jëlee euh, comme mag ak rakk sax waaye damaa jàppee comme jarbaatam di ma digal lu baax dima ma conseil di ma wax tamit fi may teg sama tànk kon nag sëñ Mamoun maa ngi lay ñaanal sa diggante yaak soxna si yàlla neen saa borom lafal cat ci barke sëñ Touba ndax fii kat xataloo fi kenn xataloo fi kenn ñëpp nga fi Euh, sama xol nag dafa dafa dafa dafa dafa sedd ba ma mënuma mënuma guddal waaye daal soxna si bég nañ bu baax a baax a baax a baax ji daal la nga suñu borom guddal soo fan waaw di sàkku nag nga ñaanal ko chaque année aar bu ñëwee ak nayen na mi ñëwee waaw jërëjëf Mbacke bismillahi rahmaani rahim habli safinatan bi kullil janna min daarati min nan yaasal min na ataani yal marka bu fii daari min nan ina tasin tadufa la ni daari min nan gannaaw bi nu sant yàlla julli yonent bi sant Serigne Touba ñu ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér naal yi mu naalal islaam naal ko suñu taam àggale ko sagoom téeméer at yu tàmbali tey te nu ànd koog moom. ñu yëkkati kàddu yu sell yu bàyyi ko soxna Bali Mountakha moom Serigne Sonia bu Xaadim Rasool ginnaaw bi mu leen nuyoo bu baax di jiite nu bi nag rakki boppam ji toog di Serigne Abdou Khadir moom Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacke Xaadim Rasool di rakam di xaritam di soppem di léppam nu bokk benn wëy jur wi ndax sëñ Muntaxa sëñ Murtala ak sëñ bu sëñ tubaa rek la te sëñ Tuubaa benn rek la soxna si di ko sant di ko gërëm ci teewaay bi ak ci taxawaay bi ak ci jàppin bi te muy lu yàgg te jëmmi sëñ Tuubaa ji rek tax rawatina doom ju baax ji nga xam ne moom laa àndal muy kenn ci moom di doom ci kër gi di taalibe di lépp muy soxna Ami Xuma mii nga xam ni moom kenn la ci soxna Bali ak bëggam ak yëngoom ak dalam lépp soxna baal la tàmbale soxna baal la yem kon nekk gi mu nekkaat ci sa biir loolu it geneen cant la koo xam ni soxna sang la koy sant la ko gërëm di la seereel it ay taxawaayam ci moom ak jàppam ak cofeel geeg lépp bu baax Serigne Djili Sylla ak délégation bi nga xam ne moom la àndal cant ji nag Serigne Djili Mbacke soxna si nee na la koy seereel ni sant na Serigne Djili Sylla gërëm na ko ci taxawaayam ci biir ak ci bici ndax saa su ne jëmm ma ngi ñëw soxnaa mi xumba miit du jóg mukk ci di wax ay kàddoom ak i teraangaam ak léppam jëme ko ci soxna Bali moom nag dafa wax ni gis naa ñëpp xam naa ñëpp waaye taxul may wax ak ñëpp la may jàppee nit jikko lay doon ndax sëriñ bi noppi na ci ñoom démb tey door a ñëw maam Thierno daane woon askan wi ñu bokk Sëñ Tuubaa njëkk a tane ay mbokkam dimbali leen ndimbal moom ku bokk Sëñ Tuubaa am nga ko ndax ku la jox loxo benn tàllal la benn loxo ne la sant ba boo nee Mbàkke faw benn loxo bi dee ñëwaat beneen boobu nag sëñ bee ko moom boobu di ñëwaat nag ci la Sëñ Tuubaa képp ku bokk ci moom kon ñoom la ñuy jàppee nit ak lañ koy téye jikko lay doon ak ay qualité la yàlla tagee Seydina Muhammad wa innaka laa xuliqil aziim te Sëriñ Tuubaa doon nu ko ñaanal ci mat la ba sifaay waxab lanaa makaarimal axlaaxi maxataxaa bu bi bilaa si xaax yi soxna si nee na jikkoo yooyu lay te jikkoo yëpp gis na ci yow nee na am nga yar am ngay teggin am nga taalibe te am nga sutura li ko gën a neex ci ndawit mooy ku nangoo liggéey te nee na loolu mi ngi ci yow ndax mënoon nga ni nag a ah, judd naa fekk teranga maa toog courage le bara rek lu sama bàyyi liggéey ma dundee nee na waaye sa jom bopp ji di def sa passif bopp say engagement bopp loolu lu ko neex la ndax dafa am ba tubaab bu ne pour être leader il faut ngay assumer du assurer ñeme échec ak soog loolu nag ku am jom moo koy def te Sëñ Abdou Lahad dafa wax ni barke ak teranga bu la see nga ger sa gu gisoo foo ko sonnee naa xam ni taxu ko jóg dafaa jaar sa la jëm boo xëyee du fa yandu bu fa yandoo du fa fanaan loolu nag moo tax ndaw luy liggéey soxna si nee na moom loolu day seddu xolam te day la ciy gën a nga gën cee góorgóorlu fi nga teg sa tànk daal neena na nga gën koo dëgëral jëf ji nga xam ne nag jëf goo ko ci bis bii di bisu soxna jaara jii nee na moom bàyyi na la soxna jaara borom barab bi ndax moom nag amul lu dul soxna jaara bëggul ku dul soxna jaara xool lu dul soxna jaara fu ko waay fekk baax na ci moom fu ko waay fekk dana ko neex waaye poroxaan nag da koo gënal fépp ndax moom lu mu am poroxaan la koy indi lu mu baax le poroxaan fu mu toogee ba jàpp ni sax war am na 30 minutes yoo xam ne moom libre na deful dara sax dana taal otom ñëw Porokhane aar maam jaara dëppaat kon moom fiyee ko gënal fépp gënal ko lu mu am fi nga ko daan fekk lépp daan na ko neex li nga daan def lépp daan na ci bëgg waaye nee na jëfi tey nag moom nee na nga xam nag daa gën nag moom ci moom waaw daa gën ci moom ndax fi ko defee ak ki nga ko defal muy jëmmi soxna jaara nee na moom fii rek la am kon nag mi ngi ñaan te ci barke soxna jaara yàlla gudd sa fan yàlla wéral la yàlla sàmm la yàlla aar la soxna Bally daal bég na di sant bu baax mboolem ñi nga àndal jëf ji daal yàlla na ko soxna jaara nangu te bu ko nangoo it yàlla na la ko fulal mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm cant gi nag ci yow wax dëgg yàlla ëpp na lii waaye lu ci dëng rek ñu xam ni ci ki koy jot la waaye fa mu bàyyi ko mu ak mat rek a fa am te lépp mate na fa mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm di gërëm mbooleem ñi nga àndal nag baax mii ni mu ko waxee ndax euh, euh, kàddu gi ko soxna si wax rek doy na sëkk ci mu gën a góorgóorlu ne ko lépp loo nekk na ko fësal ba ñëpp xam ko li may wax ni soxna Bally nag ah demul fenn mi ngi toog waaye noppam gudd na nu waay doxe ak nu waay taxawe xam na ko ñoom nag seenu du teggin sax jamono bi ko waaye seenu ku yar ak seenu tekk day tax nga defee ni sax du nu xam lu bari dafa am meeru géwél bu fi mos ñëw ne ko bi ma la gisee ak yi dama laa tegoon ko métti koo xam ni du wax du def dara waaye ndekete nitu kese nga bi mu nitu kese ba noppi nag noonu nag la yàgg yàgg ci nit yàgg ci loxo ba ku mu gis dana xam yaay kan neen daal sa ko doy na ko mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndam soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat mam jaara ma dellu kañaat bakaat waawaa wayaat dellu sulliwaat ndami soxna nu ñaaxuwaat